alhamdulillah di santaat yalla benen yon moom mi nga xamne mom moom ñu defal fekke ñu fekke at mi a yalna lepp di jamm lepp di xiwal di ñaan yalla yalla gennel ñu fi febar bi nga xamne mom moom lembe aduna kep ko xamé ne nii dal la yalna yalla yàlla fëgg sa bop nga wër ak jamm kep ko xamé ni yang koy dégg yalna na fofa ñi ci faatu yalla len yalla xaare aljana ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla musal ñu muccal ñu ci at wii nga xam ne ñu ngi ci dugg alhamdulilah di sant yàlla bu baax a baax jërëjëf gars yi ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ziar beneen yoon alhamdulilah am na ay xarit yu bari yoo xam ne macha allah woo nañ ma ci suuf di ma laaj ah yow day gëj ngaa dugal vidéo waaye fekkoon rek ñu jël break amoon ci nekk parce que jamono bii moom jaxasoo na jaxasoo boo xam ne. wallahi fokk rek nga taxaw xoolaat bu baax a baax fi nga xamee ne foofu ngay teg sa tànk waaye alhamdulilah ñu gis ne tamit am na ñu bëri ñoo xam ne rafetlu nañu liggéey bi nga xamee ne ñu ngi ko doon def parce que liñ ne woon tekk nii rek loolu am na loo xam ne loolu la wane waaye nag sant yàlla sant yàlla di leen jaajëfal ci encouragement bi macha allah alhamdulilah. waaye tamit liñ toogoon di déglu lépp tamit ñu ngi doon comme ni nga ko waxee rek ñu ngi doon déglu. waaw yëg nañ yu bari yoo xam ne mu ngi xew waaw waaye man nag li ma ci gënoon a tiital rek mooy fi nga xame ne foofu la àdduna toll ak jaaxle yi nga xamee ne moo am ak ku ci nekk nga am ak mbokk moo xamee ne nii walla koo xam koo xam koo xam koo xam ne am na kom xam koo xam ne génn na àdduna ci feebar bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mu ngi xew waaye ba tey rek dafa mel di nit ñi dëgg-dëgg tiituñ ragaluñ jaaxlewuñ waaw te dafa doon loo xam ne lu doy waar la waaw liy firnde loolu rek mooy ci ñi nga xam ne ñi ma ko sañ a wax ñoom ñi nga xam ne ñoom ci social media bi di dangasante di saagawante di waxante wax yoo xamee ni nii wax yu doy la surtout ñun ñi nga xam ne ñu ngi si diaspora bi di waxante loo xamee ne nii daal dëgg-dëgg léegi-léeg duñ ko wéer fenn waaw loolu dafa doon loo xam ne lu doy waar la nañu delluwaat suñu xel ci yàlla dafa am benn waxkat ci olof ma am wax bu muy wax mu ne gis nga ñett yii ku ci nekk am nga ñett yii sa ñetti bopp yii boo koy xalaat rek wallahi dootal bu keneen bu njëkk bi mu ne ku ci nekk rek am na bàkkaar boo xam ne def nga ko ba pare jéggalu ci yàlla ndax yàlla jéggal na la am déet bu ñaareel bi yow yaa ngi jaamu yàlla ndax sa jaamu yàlla bi yàlla nangu na ko am déet bu ñetteel bi nga ne yow jullit nga gëm nga ndax danga deexaale ci sa gëm mu ne képp koo xamee ne ni dëgg-dëgg xelu nga di xalaat mbir yi rek wallahi waratuloo joxoñ keneen te dafa am wax boo xam ne man ci suma bopp danaa koy wax ma ne ñun ñi nga xam ne ñun ci diaspora bi 70 percent ak ñun ñi fi nekk yépp suñu gëstuwaatee suñuy mbir comme ni ma koy waxee rek tubaab yi bu ñu gëstoo rek kuñ ci gëstu rek nga dellu ñibbi waaw parce que ñun ñëpp tooguñ tooguñ fi ci toogin woo xam ne nii toogin wu rafet la waaw ñu ngi fi toog ci toogin woo xam ne toogin wu ñaaw la waaw nañ ma déggee xel te bañ maa déggee xol na ku nekk rek xoolaat bu baax a baax soo déggee ma ne toogin wu ñaaw ku ci nekk bi nga fiy ñëw am na xëy na wax nga wax joo xam ne du dëgg pour nga am visa pour ñëw fi wala nga daje ak jigéeni tubaab gëm loo ko bëggee te fekk këyit rek nga bëggoon wala sax nga def ko sa sista wala sa broda waaw pour rek mun a toog ci dëkk bi waaw waaw léegi nag mbir yooyu noonu fi ma bëgg a waxee pour ngeen déggee ma fa su fekkee ne mbir dañ ko lal ci loo xamee ne ni du dëgg lépp lu tegu ca kaw loola rek jaarul yoon waaw yàlla nag mooy ki nga xam ne mooy kiy jéggale aman na nga tooñ waaye nag ki nga tooñ kooku noonu nga war a jéggalu waaw yàlla nag moom day jéggale bàkkaar bu nekk suñu diggante ak moom waaye ñu ni neen ñu ngi tooñante tooñante yoo xamee ni nii waroon nañ di ci tiit ba di fexe pour nu ñu mun a def réconciliaté su ko defee ñu waxtaan ci suñu biir defar pont yooyu noonu waaye talatuñ loolu nit dafay nekk dafa dafa nit dafay nekk ci ay mbir yoo xam ne nii moom wóor na ko ne du dëgg sax waaye moom gëm na ay fenam ba dëggal loola jàpp ne loolu mooy liy dëgg te loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax waaw ma wax naa ko benn waaye benn taam ñu ngi toog ñu yokk di waxtaan waaw maneko ko su fekkee ne ñun dañu atté ci sariya rek ëpp doole gi ñun ñi fi tok ni yépp suñu atté ci sariya rek wallahi lépp luñ fi liggé dafa haram mune ma lutax man bërbu set ngi xey di dawal suma taxi di nangam na ma ko taxi bi nga dal black taxi la lolu daganut waaw bi ci jitu moy dem nga ñaani visa ba nga démé ñaani visa waaw ne yow da ngay ñëw pour def business su ko defee ñu jox la visa ne la demal pour nga jëndi bagage delsuwaat yow nga dem tok ci dëkk bobu non di xosul fa good five years suñ lay àtte ci sariya na nga xam ne yow la nga waxoon fen la waxoo woon dëgg te yow xamoon nga ne yow boo demoon doo fa am two weeks dellusiwaat te dem nga toog fa di xosul keneen ak keneen noonu am ñeneen ñoo xam ne neneen lañ jaar damay ñëw holiday su ko defee nga ñëw li ma bëgg a wax rek foofu mooy lañ fa wax bañ ñu jox visa waaw wala lañ wax ba am këyit ci dëkk boobu boo ko seetloo du dëgg ñii ñëw nañ nga gis sa broda nga xam ne moo la fi mun a teg nga sëy ak moom mu teg la fi yooyu yëpp dafa doon yu lëndëm yoo xam ne ñun xañ na danañ ko wax xam nañ ko ci suñ biir waaye tubaab yee ñu ko gën a xam waaye dañ ñu bàyyi ci biir waaye lu tax ñuy uññi hante lu tax ñuy uññi hante tubaab yi ñoo màndu tubaab yi ñoo màndu waaw ñoom xam nañ ne ñun ci liñ nekk du dëgg du yoon waaye ñun nangul ñu loola waaw ñun nag bu fekkoon ne dam bu ñun buñ amoon doole jooja wallaahi indil génne nañ génne nañ ñoo ñëpp ci suñ ci suñ réew yi waaw comme ñun dañu xajal fii ñu xajalu ba pare waaye pare xajalaate ñu ngi xasante di yàqante surtout ci jamono jii nga xam ne jamono làqoo la tëju di tuub ci yàlla waaye ñuy uññixante loolu bokkoon na ci li ma gën a toogloo di déglu bu baax a baax parce que ñun dañ doy waar ñun dañ doy waar waaw ñun dañ doy waar amul kenn ku fi toog ëpp doole ci ñun 70 percent of ci ñun ñëpp niñ fi toogee wallahi jaarut yoon dégg leen ma xel rek waaw ku ci nekk na xoolaat gannaawam rek waaw dinga dajee ab màggat ab tubaab sax gëmloo ko mbëggeel mu gëm ba indi la fi nga toog fi du dëgg waaw waaw kay liggéey ci barab ut visa ne damay dem holiday ñëwaat toog fi ba am fi kay du dëgg yooyu yëpp ay mbir yoo xam ne yu doy waar la te tubaab yi dañu ko xamal noppi kon nañu ànd te yàlla tax waaw alxuraan daf ñu wax ne wa taawunu ala albirri wa taqwa wala taawunu ala ismi ci mbaax ak yàlla waaw waaye bu leen dimbalante ci bakkaar ak noonoon waaw bu ñuy dimbalante nañ dimbalante ci dëgg nañ waxante dëgg waaw donte et wi dafay dal sa kaw sax ka ngay àndal donte lu la jege-jege rek tegal et bi ci boppam moom mu xam ne dëgg dëgg dëgg moo tax kii ànd ak man waaw waaye nag bu ñu nekkee di miire di maslaa selu jaaru doon tey ñu ànd waxante lu baax jayante ëllëg ñu tàggoo commencé di jëwante di waxante wax yoo xam ne wax yu doy waar la nañu jàpp suñu làmmiñ yi nañu moytu suñu làmmiñ yi lañ ciy wax yonent bi salaa salaam dafa wax ne ku gëm yàlla ak bés bu mujj ba waxal lu baax maa nga noppi waaw waxal lu baax maa nga noppi wallahi làmmiñ dafa mën a yàq lu bëree bëree bëri làmmiñ dafa mën a yàq lu bëree bëri bëri di sosal nit ki wala nga dëggal nit ki rek wallahi la ko déggal fekkoon yow mere woon nga ko moo tax nga dëggal loolu loolu dafa am ci nit ñi ñoo xam ne danañ la mere waaye fekk mere gañ lay mere ñu ngi la siisee añaanee la soxoree la waaye amuñ fu ñu la jaaree ñu dégg benn noonu wax dara rek ñu ne ah yoon waa ngi nii waaw yooyu yëpp dafa bokk nag ci loo xam ne moo ñuy kare ñu ngi toog di laaj suñu bopp jamono bu nekk lu tax ñu duñ dem fenn man dama ko war a laaj suma bopp keneen ak keneen laaj ko boppam li ñu teg lan la li ñu teg ba mënuñoo dem fenn lan la ñu xam ne ci ñun la nañ joxoñ suñu bopp xam ne mbir mi ci ñun la man amila saalihan fa li nafsi wa man asa faliha loolu la ñu alquran wax waaw boo defee lu baax rek sa bopp nga ko defal nga def lu bon itam sa bopp nga ko defal kon nañu bàyyi wante xel xam lu ñuy waxante ci tegu ñu ngi jaalee sunu jigéen Aja sona macha allah wallahi mu doonoon soxna so xamne soxna su bax soxna su sonn si njaboot doomam ju gor Pa Souley mo gene aduna demb ñu ngi koy ñaanal yalla yalla nako yalla yereem te xare ko aljana mu doonoon non la si jabor way yalla mo yor dogal yalla lu mu bëgg mooy am moy indi ta bu muy indi tàggoowut bu fi jele tam du tago ko ñi inna lillahi wa inna ilahi rajiun dila wax yow Aja sona na nga muñ ñu ngi ñaanal xale bi ci waxtu wu nekk ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xaare àjjana yow itam yàlla dolli la xoli muñ kon looloy lu gàtt li nga xam ne moom laa leen indiloon di leen jégalu ak lu ci yàqu nag ngeen xam ne suma xam-xam bu bu matadi la waaye bu rafetee ngeen gërëmee ko yàlla ak yonent bi te xam ne wax yombut waaye dégg leen ma xel te bañ maa déggee xol ku ci nekk na nga fexe xoolaat sa bopp bu baax a baax su fekkee ne bëgg na nañoo dem ca kanam waa xaru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaam